rajo bi am na ci réew ah salaam yow booy ce que gis na mel bi bi ñëw est nga sa bopp non ah non si yaa ngi mel ni garab gu bees tax goo xamante ne nii ay fleuram dana yàgg sa kaw il faut nag ma bëgg la ah ndax ma juddoo ba nekk mag ba léegi kenn mësul maa wax bëggeel am nga ko tey dama xamal la dara di hmm. yow góom buy faj nga dëgg neexu xam nga lañ wax ji ñaar hmm. dama nekk ci yoon dama bëgg nga jox ma sa numéro call amu ben problème te bés boo ma kóolee doo ko rëccu inshallah allah comment waaye yow non après nga woo ma de ah no wi ba gis nga ben mbir la la bëgg nga xam genre yi melni yow hmm. dañuy doxal dëkk bi te nit soko gisee dang kay jox limu mu deug neexul xam naa ne sa xol bi gaay yi doxuñ te wuñu ci bir te xam naa su ma si doxantoo nga am lu bare boy inshallah ay trace bu la dara metti mais yow gis nga nit di wax ak mom gëna ne man looy def fi mais yow eh, dama bëgg nga réglé la la wax ba baax li ma la yow gis nga yow ki fekkee ne moo tax nga taxaw fi ki amul dara manul dara jabarama nga nële mu bàyyi ci kër suma demul liggey ci ñak ñew jariñal ka mom mi ak jabaram amul lu ko jox xam nga lan la bëgg nak dama bëgg nga bay ko tout tranquillement ya may dégg bu baax ni rek ngeen def ko leen gis dugg ci mom xaw ma légui lan mo tax jigen légui amatul valeur yéen lan la roy leen ci suñuy mam yu njëkk ya té de ci famille yu baax ngeen bopp mais xamoo leen mukk seen bop jigen day tok ci penku ndayam waju baax gis ko bëgg ka takk mais lii ngeen di def nii loo wax rek ñu xas jigéen ñi. man damaa toog sama penku day toog sama penku bay. boo ko toogoon sa penku ndey di liggéey dajeeg waaju baax ji. Ah waaw ji taxaw. kii du pour sama mag ji du pour yow. borooma nga ca kër ga mu toog. eh xam nga la laa eh damaa bëgg nga réglé yow. <coughs> loo bëgg suba ba jant soog ma dem ceeg yow ba mu neex waaye damaa bëgg nga réglé xam nga la laa lay jaaral ñu nga ñëw ñu da ngaa dof lan la dal at. yow demal waxtaan waxtaan nangam yow caat demal ñibbi waaye demal ñibbi maa ngi ñëw demal demal. soo koy bëgg di lii ngeen nekk ci weeru koor di taxawaalu ci ay miir lu ne ngeen. yow sa fa la bon. bu ko jàppee dara caat la da ngay comprendre ne caat lu ko neex mu wax lu ko neex mu def am déet te it ma xamal la dara. xaaral sama coppite sax moom la ñu. alors waa mais yow sàmbar ñi fan nga ne. démb ba tay ma nga lay wër suma la ma ngi si bop koñ bi ya ngi ci buntu kër gi ma ngi ci bop koñ bi ñëwal ñëwal amna lu graw lu fo nek nga way ñëwal rek sama way ah sama lepp la moy sama lepp di sama lu ne xaar ah. dama la bëgge non la ko bëgge yow ah dëgg neexul xolal legi xamu ñuy def ñu naa ne jël sax lu neex